Euh, damay dalal nag euh, ñeneen ndaanaan yoo xam ne euh, ràññee nañ leen ci àdduna bi ci liggéey boo xam ne dañu koy def muy ay rappeur muy waa X conscience di def buzz nag ah, ñoom affaire bi jamono ji ñoom ñoo ko téye jóge ba Mbour ñëw fekk ji li nga xam ne moo di nuyu di Ndiambour c'est pas la première euh, la première fois moom. voilà lan ngay wax euh, maa ngi nuyu ñëpp d'abord. ma lay remercier aussi di la sant bu baax a baax yow moom nit nga te nit ku baax nga quoi nit ku mat nit nga. di remercier aussi Bamba Bamba Fall ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul te muy def liggéey bu rafet Sénégal moom liggéey fi xam nga ni yombul. ñii dañ naan dina dem ñii naan du dem. ñii di defar ñi di yàq ñii di gas ñii di suul. mais nag euh, li am solo li am solo mooy gëm-gëm bi ak fula ji ak fayda ji. te def na ko si ba mu mat ñun nag ay artistes nañ te li ñuy def bëgg nañ ko xam nañ ko te ñu koy gëstu aussi. te lépp lu ñàkk fayda duñ ko ci boole. kon képp ku ñu gis ngay liggéey. bëgg a jëm kanam wala nga bëgg jëmale nit ñi kanam wala nga bëgg jàppale jeunes yi. parce que on dit que l'homme n'est jamais aussi grand lorsqu'il est à genoux. ok près d'un enfant. ko ci sant di ko gërëm. di xamal gars nag démb def nañ benn prestation. gars yi signé mais léegi lan tey tey tey lan ngeen waajal pour nii di ñaaw pour gars yi nga xam ne ñoo ñëw fi mel na ne du yomb ah. waaw tey du yomb parce que comme euh, ay jeunes ñoo fiy daje donc lu ñu kaf-kaf lu ñu reeree souvent dañuy soxla ñu waxante dëgg tey ci musique bi ñuy def on va leur présenter le hip hop conscience muy wuyoo ak sunu tur bi nga xamante ne mooy xalima conscience dina conscience mhm. dinañ leen tegal hip hop conscience mu doon musique bi nga xamante ne dinañ si dégg ay kàddu yuy jariñ yuy jëriñ ñun yu leen di jëriñ ñoom ñuy jëriñ ñeneen ak ñeneen ñu xam ne musique du kaf rek mais tamit dëgg la am na liggéey quoi am si biir yow da ngay ak man ma euh, nekk kii nekk sama droite di sama xarit bokk tamit ci X Conscience muy groupe bu mag bi lan nga ñuy wax ci nuyu di ñàmb waaw nuyu di ñàmb euh, d'abord maa ngi nuyu di la tamit sa gars yi nga àndal ci liggéey bi rafet na trop macha allah euh, nii di ñaambur nag mm, yàgg naa si ñëw kon ça veut dire lépp lu ma si wax rek. Hmm. dama ko xam quoi moo tax ma di ko wax. Bamba euh, na lu rafet maanaam nga chaque année si gis ay affaire yu rafet maanaam euh, loo xam ne nii daal mën naa ne ku ñëwul leen ngeen ba Mbour ngir ñëw tekk moo ñu ko jaral. parce que euh, moo ñu woon yëg-yëg boobu te sac année. Mm. dañuy ñëw ak moom fii nii. Euh, def fi lu nice lu xaat. yëngal fi ak 100 pour 100 hip hop. waaw mais 100 pour cent yi boobu ngeen andi ah. mais euh, Paco xaw ma yow yaa ma koy may xaw ma sama copain mais bëggoon naa ngeen euh, ñamal ma tuuti avant ñuy wax euh, ci li nga xam ne mooy seen ay activité yi ngeen dëmmal bëggoon naa ngeen may ñu tuuti xaw ma da ngeen koy freestyle xaw ma nu ngeen koy def. man waaw mën naa la amee benn su ma neexee ma ni. xayma du ci toll jëm ak ruu ni mu toll. nit la yàlla wóolu jox ko xel bu ko móolu lu jige fa yàlla fa lay dellu donte la bëri sagar dun yaa ngeen bokk mais ku sa bopp xamul loo sa kii raay fa ñu mooñu suuf ak ndox doo wat ñu yaa ko fekke yéen fi bokk yem waaye ku nekk ak fa nga moome génn fu bés yem da nga fañ la mooñee. ok mu mel ni li ci def ci kanam la li ci des ci kanam lañ koy. waaw li ci des ci kanam euh, de la fin. Euh, euh, jamono ji groupe bi X Conscience fan lan mooy seen ay projet nga si jaale. waaw comme ni nga ko chaque jour ñu ñi waa X Conscience ñoo ngi seen ñoo ngi seen projet yi nga xam ne ñoo ngi koy waajal. xam naa si ay fan yu néew. Ah. nañ génneel gars yi ay ah. bagages waaw dinañ gis lu garaaw. ok génneel leen action yu yéeme yoo xam ne nii. gaa yaa ngi koy xaar fan yii waaw te ñoo ngi koy indi léegi nii incha allahu rabi du yàgg dara. ok kon ci kanam. voilà incha allah si kanam incha allah moo tax. Sénégal nga di def ku gay na njaay def ku baax def ku baax ñaar fekk bi maa ma laaj su ma nee la si ma mat ko jiw ne leen ma taam ma yor làpp dëkk sama jaan si moo ma taam yar sama dëkk fàtte sama dënnu ah. ma nee la gaynde kan mooy gaynde